jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare lamb tey ñu ngi fii ci géejawaay ki ñu fi woo di association fis euh, association fis nekk association boo xamante ni euh, kuréel gi li mu ëmb bëri na dañuy def formation ak xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb di yëngu ak moo xam ci leneen loo munti nekk di leen former ci lu nekk euh, tey nag ñu ñëw ci xale yi nga xamante ni dañ leen former ci garde rapproché ak yu mel noonu tey ñu ñëw xool si ñi nga xamante ni fekk nañ leen fi fekk nañ fi ay ndaanaan yoo xamante ni euh, champion lañ ci làmb su ma nee caatu yaraax fekk nañ ko fi Moussa Balla Gaye euh, Tidiane Faye le professeur de Langsar Yaaw jàll ak yeneen mbër yoo xamante ni ñu ngi fi euh, fekk naa fi ki nga xamante ni mooy njaga doole ak yeneen ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi fii ku lim juum ku ci mel ni caatu ki nga xamante ni mooy fourrière bu Grand Yoff moom it mu ngi ci biir dinañ leen digtal quelques mbër yi nga xamante ne ñu ngi fi euh, su ko defee ñu waxtaan ci formation bi durant bi ak euh, pendant bi ak après bu ñu leen di remise seen diplôme nan lañ ko dundee ñoom ñëpp mu ànd ceeg euh, borom mbég nekk taal mi sëñ Basiru kaay ñu ko. Cheikh Bamba maa ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum Cheikh Abdou Khadre Jili maa ngi lay ziar bu baax a baax. di siyaare bassiru Diouf di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa Wasaare euh, TV ak wasaare wasaare làmb yëpp. waaw ñi ngi sant yàlla bu baax nag di julli ci yonante bi. waaw bu ñu mayee fekkee tal ñu koy sant bu baax. tey ñu ñëw fii fekk association FILS ëmbo euh, kuréelu làmb ñu ci bari ci làmb ñu gis leen surtout mbër yi nga xamante ne am nañ tur ñu leen defar formation mën nga ma wax formation bi kañ la commencé ak mbër yi ñaata temps lañ ci def. waaw waaw jii comme euh, niñ ko waxee woon rek. Hmm. ñun dañuy ndaw yàlla def ñu nekkoon bitim réew. mais laata ñuy dem bitim réew nag ñu nekk nitu làmb juddoo tamit dëkku làmb yàlla dafa def ñu juddoo Fass màggee Parcelles Assainies nekk doomu Bawol te ku ne xam na ni faas ak Parcelles ay dëkku làmb la man nag bi ma demee def naa fa daanaka fukki at ak lu ci teg daan def sécurité garde corps rapproché euh, tukki euh, jom la waaye ñibbi si fula la comme que euh, dëkk bi ñun ñëpp ko moom te dañu bëgg dañu dañu war a bay suñu waar pour mu gën a jëm kanam te ku ne xam na ni Sénégal euh, ay jàmbaar lañu mais emploi des jeunes dafay manqué. looloo tax ñu ñëw bu ñu ñëwee nag nekk promoteur di tëgg ay làmb. waaye di ko tëgg ci beneen anam. bi ñu ñëwee nag euh, euh, di tëgg ay làmb waaye nag ñu am benn initiative boo xam ni dañ ko taxawal mooy un lutteur un métier. Mm-hmm. maanaam mbër bi dafa war a am métier. parce que carrière mbër yàggul. surtout jamono gi ñu toll nii tey mën nañ ni bu 200 euh, euh, lutteurs amee ci at bi mën nañ ni cinquante wala vingt ñoo ci bëre. te tamit xale bi bu fekkee ne dafa entraîné am doole bërewul amul métier bu amul encadrement bu baax rek mën naa dugg ci leneen loo xam ni baaxul. looloo tax nag bi ñu ñëwee ñu nit ñu bay ci suñu waar taxawal un lutteur un métier taxawal ko nag mu nekk tamit association. bu boo xam ne sénégal amul ko récépissé association bi nag mu ngi tudd formation insertion des éditeurs du Sénégal loolu bi mu amee tamit ku ne xam na ni président Alioune Sarr moo ŋànk eng ñu dem waxtaan ci ak moom wax ko li nga xam ne moom la ñu bëgg mu rafetlu ko lool moom it nee ma dinañ den ci accompagner ndax li ngeen bëgg wax dëgg yàlla jàppale Sénégal la jaamu yàlla la mu rafetlu ko boobu ba léegi moom it mu ngi ciy jàpp waxtaan ceeg ki nga xam ni itam moo yor président des écuries et des écoles de lutte muy Malick Gningue mhm. parce que tey boo bëggee fëgg bunt yi il nga jëm ci ñoom parce que mhm. moo géré écurie yi mhm. mu rafetlu ko ne dina ci ànd ak ñun yàlla dimbaluñu nag ñun association bi xëy na mën nañu am suñu initiative waaye nag état moo la ci mën a jàppale ñu dem waxtaan ceeg ministère sport Matar Ba mu rafetlu ko waxtaan ci aussi ak ministre ki nga xam ne moo ŋànk jeunesse bi muy Fatoumata Néné Tall mu rafetlu ko. ñu waxtaan ci ki nga xam ne nag moo géré formation professionnelle ak emploi des jeunes muy ministre Dame Diop. moom it mu te mu mu mu mu yaatal ñu ci wax dëgg yàlla yaatal bu am solo. nangul ñu liggéey boobu noonu franchement boole ñoo mbooloo mi direction bi nga xam ne moom moo leen ëmb. muy direction de l'emploi. ANAMO ONFP ak 3FPT. fi ñuy wax ak yow nii actuellement dañoo signé convention ak ONFP office national formation professionnelle. signé convention ak direction de l' emploi di waaje signé convention ak waa ANAMO. ONFP nag ñoom la ñu nekkal actuellement démarré gum ñoom ak ñoom war a def une tournée nationale. ci ay formation garde corps rapproché. actuellement Dakar ñi ngi fi formé ak ñi ngi ñi ngi formé actuellement vingt lutteurs en garde corps rapproché. mu am ci mbër yoo xam ne wax dëgg yàlla yu am tur lañ. ñu mel ni Tidiane Faye yaawu Dial xam nga caatu yaraax Fourière ak Njaga Doole macha allah ñoom ñëpp ñu ngi fi tey noonu lañ ko bëgg a defee Sénégal yëpp wax dëgg yàlla di tàllal loxo tàllal loxo ñëpp parce que lii dafa am solo euh, xale yi ñu dimbali leen ñu am métier ndax ëllëg euh, ku ne xam na ni diplôme d'état ngay am foo ko tàllal dinga ci mën a xam nga am am sa métier. ci loolu noonu daal lañ nekk nii. Euh, wax dëgg yàlla actuellement ñi ngi ci formation yi nii moo tax kontaan nañ loolu ci seet si bi ngeen ñu seet si di waajal remise diplôme bi ñi ngi ko war a def incha allahu rabi le 4 septembre. fii dañ ko war a def fii ci hôtel de ville bu Guédiawaye dañ euh, ko war a def à partir de 15 heures 30 buñ ca paree war nañu dem Sum Foundiougne. foofu tam war nañ fa dem former 20 lutteurs. war nañu dem kaw Kaolack noonu lañ koy defee ba mbëri yëpp daal gis seen bopp. waaw yemuñu rek nag ci garde corps rapproché. mbër bi bu bëggee formation agriculture. wala mu bëgg pêche. wala leneen ak leneen mécanicien wala électricien wala sérigraphie. waaw convention bi loolu yëpp la tënk. te dañ ne formation insertion démb la ñu signé convention ak waa direction de l' emploi. ñoom it nee nañ lépp lu ñu formé rek ñoom dinañ jéem a seen insertion bi ni ñu ci jàppale. yaakaar naa ne lu am solo la ndax sama sëñ bu baax bi sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou. bi ma ko seetijee ak ñi ma war a àndal ñëpp. daf ma ni ku nekk nga fii ñëw ma koy rafetlu mais li nga indi nii. ñun li tax ñu war cee mën a ñaan jàpp ci mooy jaamu yàlla la ndax koo jàppale ba mu am xëy mën a jënd ceeb wala dëwlin mën a mën cee dolli ci kër ga loolu yaa ngi ci jaamu yàlla Bamba Mboup daal en tant que président association fis ak ñi mu ci àndal maa ngi ciy remercier tam équipe bi ma ciy àndal yëpp ñu mel ni ibra mbay Mbaye Abouli Bëgg Fàllu El Hadj ah ak Amadou Cissé bu Anamo euh, ak mbay sàll per Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla yëkkati mooy sama vice président ñoom ñëpp daal ñu ngi ciy ànd euh, ànd bu rafet man ak ñoom fas yéene daal ak euh, Aliou Ba euh, frère Ba ci Seras ak ñëpp daal parce que yëfu Sénégal la mbër yëpp ñu ngi ci ànd di ci ànd di ci liggéey liggéey bu rafet remise diplôme bi nag ma ciy woo ñëpp ma ci woo autorité yi di ci woo tam lutteur mbër mbëru VIP yi bàyyiwuma ma Gaye bàyyiwuma ma Lo Gris Bordeaux Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang xam nga guy gi mbër yu mag yëpp ku lim jum bëgg nañu remise diplôme bi ñu ñëw parce que ñun li ñu waroon ñu ngi koy def ñoom nag ñoo mën a ñëw sensibiliser seen ay rak xamal leen ni làmb carrière am quarante cinq la mhm. tey jii nii da ngeen a ànd ak association FILS adhéré pour mën atteindre seen ay objectifs. Mhm. waaw loolu noonu daal ci lañu nekk Cheikh Boukhar euh, di ci liggéey nii. Mhm. waaw diiran bi euh, mbëri bi ñu ñëwee commencé ci entraînement yi formation mhm. ñaata ñaata kii la la durée. formation bi euh, normalement mi ngi waroon durer trois mois. mais ñi koy defit ñu ngi ciy remercier DG bu ONFP Souleymane Soumaré. macha allah formateur bi mu ñu booleel Matar Diop. tey ñu ngi war a def formation bi maximum 11 jours. mais mu te mu mu leen mu mu ànd nag ci pas-pas. wax dëgg yàlla chaque jour que jafee mi ngi koy def à partir de 7 heures du matin. ba 17 heures mbëri ñu ngi fi macha allah. waaw formation 11 jours la boo xam ne c'est accéléré. mu ci dem ak pas-pas ak rigueur. waaw ñi ngi ci daal ci kàttanu yàlla yaakaar nañu feeg vendredi ñoom dinañ pare. incha allah rabi bu soobee yàlla. jaajëfal bu baax jaajëf jaajëf kontaan naa di leen gërëm yéen it aussi ah. jaajëf xam naa après ñu jël bëri rek. Père Ibra tey ñu ñëw fekk la fii ci association FILS nga ànd ceeg xale yi di leen former di leen tàggat euh, tey lan nga ma mën a wax. waa li ma leen mën a wax rek mooy dama ci am mbégte rek. parce que ku ne xam na ne mbër suñu doom lañu suñu jaboot lañu bon buñ amee leen lu ñu mën a boole nag ak làmb ji ñu nañ ci am fierté parce jamono ji naqari naqarwaay boo xam ne benn liggéey rek yorul kër te liggéey bi ma gis ne liggéeyu noobul la donc li ma jotal gis na seen coach yi di leen ko wax nii rek lu set la sama xol la li njëkk li ma njëkk a mooy dama ñëw fekk boo yëpp ñu wat leen mbër noobul la li ma gis ñi tey jii mën nga def la neex boo duggee ci làmb ji defal la neex mais boo gënee nekkal te leneen dama xool ko comportement Bill Paco rek homme de loi bu duggee ci làmb ji day defalu dem lu ko neex su bëree dimanche ñu may ko lundi mardi bu boo ko fekk commissariat wala nga fekk université da nga naan kii du moo doon bëri keroog dimanche loolu laa gis fii tey merci may remercier nag suñu coach yi vraiment boobu léegi ñëw ma fi ne tey laa fi door a ñëw ndax dama activité yu ma doon lijjanti mais vraiment kontaan naa ci li ma fekk sama doom yi di ko def. am naa ci mbégte daal. waaw Sénégal gépp ñu ngi lu lii parce que mbër métier tey mbër mbër métier euh, dafa mel ni yéen association FILS taxaw ngeen ci mbër yëpp ñu am métier. waa parce que lii mu moo ñu war. sooy seet Sénégal gépp ñun benn métier benn benn af benn sport la ñu am muy làmb xale yëpp daw song ko bu ko ñëpp songee ñi mën nañu arrivé ñii di ñu arrivé donc boo ci boolee beneen métier wala ñaar. kooku boo liggéey yow mi ko yar wala yow mi ko jur sa xel day dal et lii lu lu baax ci réew mi la kontaan naa ci trop ah lii nii sama xol def ci seddu guy sa xale kenn ko ci gis tey am na kàttanam mel nu ko neex su fekkee tey ji làmb ji doxul su génnee mën nga gis beneen safaan boo xam ne du la neex yow muy kilifaam du ko neex moom mm-hmm. mais bu ci boolee leen loo xam ne boo léegi da ci mën a xool ne mën naa ci doon soutien de famille la mën naa ci soutenir samay famille xel day dal mm-hmm. te lii vraiment kontaan naa ci daal vraiment jaajëfal bu baax a baax seet guy jërëjëf Fer mbokk yi ba tey ñu ngi taxaw ki nga xamante ne mooy formateur bi di Matar euh, Matar maa ngi waaw ñu ngi leen di fay euh, wax dëgg yàlla kontaan yi tamit ci seen tewaay fii euh, di nuyu ñi ñuy seetaan ak seen i téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo abonné seen chaîne yi. Mm-hmm. vraiment di leen gërëm vraiment encore une fois ci seen teewaay fii tey. Mm-hmm. voilà tey ñu euh, xale yi nga xamante ni dañuy yëngu ci làmb ñu ñëw bëgg a doon cadre de rapproché ngeen leen forme ci formation bi formé xale yu mel ni metti na. waaw yombul xam nga formation moom boo ko déggee mooy euh, defar nit ndax euh, mooy jële jëlee jëlloo gën a baax yokk ko ci doomu aadama te ñun ñi ñëpp ku ci nekk da nga yor jikko am loo indaale am lu ne ci yow te it euh, ñun motuñu de ce fait que formé nit foog nga jël li nga xamante ni xëy na jàpp nga ni baaxul nga génn ko yokk ko ca la ngay indi lu baax indi ko léegi nag yàlla def ki nga xamante ni mooy Bamba Mboup euh, di jël initiative bi ak waa ONFP euh, waa ONFP aussi ñu seen ay partenaires ñun waa Fit Protect ñu dénk ko ñu mission boobu début bi yombul parce que dara warul yomb mais yàlla dimbali nañu ba vraiment mbër yi nga xamante ni ñoom muy ñoom la ñu nekkal fii am na changement bu rëy parce que lépp lu nga xamante ni euh, kuy def sécurité plus particulièrement ci protection rapprochée Euh, am na ci facette yu bari yoo xam ne xam nañ ko. donc nag comme ni ñu koy waxee sécurité ak formation du doy da ngay ñam tuuti du tee ngay yeesalu du yeesluwaat. donc euh, am nañ yaakaar ci ñoom wax dëgg yàlla ndax am nañ beneen visage par rapport ak bi ñu fiy ñëw. li ñu fi indi woon ak ñu meloon. par rapport ak léegi. voilà donc euh, maa ngi ceeg suñu collaborateurs yi fi nekk comme Maître géey ak Babacar ak jàlloo ak ñi fi ñëw ñëpp vraiment bëri na ñu fi jaar. ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib. voilà formation bu ngeen di xale yi lan ngeen di commencé parce que dafa mel ni booy ku ci nekk euh, mbër yi ni ma leen xamee woon moo ñëwee damay gis ñi ñu dégradé ñi ñu dabalaa mais dama ñëw jékki seen bopp yi ñoom ñëpp ñu wat leen formation bi moo laaj loolu wala. ku dugg si loolu. formation yi dèjà dafa am dafa am ay pàcc yoo xam ne dañ xaaj. pàcc yi nga xamante ci parti militaire lañ ko jë lañ ko lañ ko jëlee am euh, parti boo xamante ni aussi parti sécurité bi donc muy discipline beeg yooyu. <clears throat> boo ne armee nag wala disipline moo ci jiitu sportif aussi sax boo ne sport. dañ naan la ban discipline ngay def. donc loolu lañ leen xamloo. nga xam ni ay mbër mën nga ko rafet. te doo dabala wala peut-être su la ne même du style la mais nga defee ko beneen anam boo xam ne fu la neex di mën a dugg foofu surtout nag kuy def protection rapprochée parce que sécurité comportement la donc melokaan la da nga war a mel mel melokaan bu rafet bu exemplaire boo xam ne tey jii nii euh, visage boo nga nekkoon ca làmb ji da nga koy teg fee parce que nag double casquette nga booy dem ci làmb ji bu la neexee nga mel ne waaye nag booy liggéey protection wala sécurité dafa am beneen visage boo xam ne moom nga waroone loolu lañ leen xamaloon ci biir euh, début formation bi donc ñu wattu ñëpp wattu ba jeex seen karaw jeex donc am na ci ñoo xam ne sax problème la woon parce que bi ñu ñëw ay rasta lañ defoon mais ñëpp seen i karaw ñu tàmbali liggéey ak ñoom wax dëgg yàlla gis nañ ci changement aussi ci xel parce que liggéey nañ ci seen xel voilà liggéey ni ci seen xel vraiment euh, métti na mais yàlla dimbali nañu ba xëy na liñ ci bëgg am nañ ci tuut voilà jàpp nañu fi mu toll ne xale yi euh, képp ku leen soxla nan la mën a def ba jot ñun hmm. waaw ñun bon ñu ngi géejawaay di liggéey depuis 2013 ñu ngi fi di liggéey yor fi benn centre de formation boo xam ni ci mbiru sécurité la ñuy liggéey donc euh, tëjuñu suñu bunt dañu ne sax euh, képp koo xamante ni yàlla def na nga bëgg métier bi nga xamante ni moom la ñu bëgg muy suñu métier ñun ñi fi nekk waa FIP protection internationale mais ubbil nañu suñu bunt parce que euh, lépp partage la séddoo la suñu ay rakk ak suñuy mag rek ñun ay sénégalais lañu ñëpp kenn ku mu mënti doon soo ñu woolee incha allah lu mu mënti doon mën nañ ci jàpp bu baax ba li nga yaakaar ci ñun nga fekk ko ci ñun voilà. ñu lay jaajëfal bu baax. ma ni ñu lay jaajëfal bu baax a kontaan nañ trop aussi wax dëgg yàlla wasaare ah. ci seen teewaay fii. kontaan nañ trop trop trop vraiment. kilifa gi tur bi naan la. ah maître Guèye la. maître Guèye oui. Ah, tey ñu ñëw fii ah, lan nga ci ci xale yi. waaw man euh, moniteur laa fii euh, ci euh, fit préparation internationale. waaye mm. man maa yor wàllu préparation physique ak self défense. oui ak sécurité. Mm. oui. bi nga ko commencé di def léegi yàgg na. waaw ba ma commencé nag euh, yàgg na parce que oh. man 2012 euh, laa dugg ci sécurité. waaw mm-hmm. ah, mais sécurité amateur laa doon def mais après dama mujj def formation. Mm-hmm. dem ba génn moniteur xam nga waaw mais maa ko boole ak armation bi aussi. Mm-hmm. oui parce que man maay entraîneur équipe nationale Sénégal Kën Fu Wusu. waaw nekk arbitre national aussi. nekk euh, entraîneur africaine nekk président commission discipline Ligue de Dakar bu Kën Fu tey xale yi euh, nga former leen jàngal leen li nga xam ne am na loo xam ne def nga ko ci ñoom tey loolu bi nga koy def ci ñoom metti na waaw métti na méttul parce que xam nga nit koo xam ne nii xam nga musta xam lan mooy xam nga formation professionnelle. Mm. waaw yaakaar na pour formate li nekk ci moom dugal ci leneen du yomb mais nag euh, sant na yàlla quoi parce que li ci gën a yomb mooy bu dee côté espoir ñoom fekk na ñoom ñëpp ay ay ay ay kii leen quoi waaw. am mm. ay merci beaucoup. ok tàmm nañ espoir quoi. Mm-hmm. oui. waaw ah, loolu loolu quoi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ok merci beaucoup jaajëf. jërëjëf ok. Euh, ba tey ñu taxaw kenn koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb bi ñu ñëwee ci association FILS fekk nañ ko fi muy muy def ci formation bi euh, muy Tidiane Faye le professeur de Langsar kenn du ko présenté Tidiane maa lay nuyu. waa ñu ngi lay siyaar bu baax ñu ngi siyaar bu baax. di nuyu Sénégal monde tout monde entier yëpp. di nuyu waa association FILS yëpp. njiit bi nga xam ne moom mooy Bamba Mbuub ak collaborateur ñu àndal yëpp. ku mel ni suñu père entraîneur bi nga xam ne moom mooy entraîneur bi nekk Fass nga xam jóge fi ni ak sama père Ibrahima Mbaye hmm. ki nga xam ne mooy suma jarbaat di Mbaye hmm. ah, di suñ ziyaare ñëpp ñi nga xam ne nekk si groupe bi wax dëgg yàlla hmm. waaw. Euh, Tidiane ñu ñëw gis la ci formation bi formation bi bi nga koy def ak léegi waxtu bi ñaata la. waaw onze jours la ñuy wax actuellement nii tey la deuxième jour bi presque semaine deuxième semaine bi. waaw depuis lundi passé lañ commencé. waaw léegi entamé nañ benn lundi beneen semaine bi démb. tey mooy deuxième jour bi. Mhm. Euh, tey nekk deuxième jour bi formation bi métti na. waaw métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop trop trop trop parce que waxuma dala sax mais beneen njàngat day amaat sa sport. parce que kër si ñu fi bekk tamit wax dëgg yàlla baax nañ trop. wax dëgg yàlla munuñ leen a fay tamit parce que am na lu bëri loo xam ne yokkaat nañ ko suñu xam-xam parce que xam-xamu sport du du du jeex daal. du jeex te ku nekk ak li nga koo xam ne moom lay moom lay renforcer. muy chef Malick wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom mu baax wax dëgg yàlla. Euh, tey ñu war leen a jox seen diplôme euh, ku mel ni Tidiane Faye yeneen xale yi nga xamante ni mënuñoo dugg ci lii wala bëgg nañ cee dugg xamuñu ci lu ñuy kii lan nga leen di wax. waaw booy seet c'est la première fois si si Dakar. ñu ngi koy soog commencé. tey nañ xaar yeneen raison yi nga xam ne gars yi ñu ngi ñëw foofu noonu. même biir Dakar fii sax xam naa ne duñ fi doy parce que suñ gisee ku mel ni Tiyaan. ku mel ni Ama Ndaw ku mel ni ki nga xam ne moom mooy Ibou Ndafa numéro 2. ay Youssou Ndour. Ah, ay caat bu caat bu yaraax. ay njaga doole. maanaam mbër nekk fi ay Moussa Fadzo. Euh, Assane gars yëpp daal. ñëpp ñu ngi si kii bi ñu ñoo ñëpp intéressé wu si kii bi ba ñëw. wax dëgg yàlla am na sens daal. Hmm. Hmm, am na sens baax. lan ngay wax ñi nga xamante ne ay garde rapprochée lañ bëgg a doon mais ay amateur lañ te amateur ku ko xam-xam ne euh, wóorul ci li nga xamante ni mooy liggéey bi parce que yaakaar naa kuy ku yor kaaraange nit ki war ngaa doon koo xamante ne maîtriser nga li ngay def. waaw surtout waa loolu parce que du doy du doy parce que ku ne xam na ne jours si ga si si kii garde formation accélérée la ñuy def waaye teewul du ñu bàyyi nag parce que il faut nga jàng self défense bu baax bu affaire bi jàll tam dañuy gën a suivi entraînement yi bu baax parce que ñu ciy wax dafa bëri sa garde rapprochée il faut nga am physique ba amul physique doo mën a ànd ak sa VIP di def yenn kii loolu loolay problème bi kon kon kon loolu am na il faut nga am physique bu baax sama rakk yi nga xam ne ñoom ñooy waaj ak ñi nga xam ñoo ci nekk dañuy góorgóorlu génn ci parce que tamit lii sens ku ne xam na ne benn métier doyul ci góor waxuma la sax jigéen waaye benn métier doyul ci góor tey jii nii li ñëw si ñun mooy mas mi nga xam ne moom mooy ñëw lëmbi àdduna ñun ñëpp métti ñëpp métti ko lépp ak ak maanaam activité yëpp taxaw tey jii ñu bëgg a amaat bi ñu benn métier dañ bu nekkoon dañoo jàng garrapase bu yàgg kon bu ñu tee yàq suñu kii parce que dañ ciy nekk waaye tey ji yàlla dogal na dugal nañ ci te defuñ ci dara financé wuñ ci dara ñu ñëw def ko pour defal di ko gratuit wax dëgg yàlla suñu paree ñu jox la diplôme boo xam diplôme état lay doon hmm. dañ ci sant bu baax di ñaax sama mbokku mbëri rek ñu xam ne carrément am na sens bu baax association fils bi nañ ko gën a jàppale mu dem ma nag président na ko gën a jàppale mu dem ñu lay jaajëfal bu baax te jërëjëf kontaan naa si yéen bu baax parce que seet nañ ba depuis commencement ba léegi yéen ñu topp doon bàyyi dara mais nag fii saf na de hmm. waaw saf na bëgg naa ñëw non ñëwal ñëwal ñëwal ah. loolu kon duñ la ko tere ñëwal dama bëgg a entraîner la am physique tuuti sax doo ko dama lay boole kër si ñoom kër si mère Mali ak Guèye ñoom ñëpp ñu ñu gérer la quoi waaw incha allah taw feex rek jërëjëf sëñ Bas boo gisee njaga doole nga xam ne daj na fi mu toll nii boo gisee bët yi nga xam ne fi mu toll nii daj la coono bu bettee bette maa ngi lay siyaar waaw doomu yaay maa ngi lay bëggee waaw ginnaaw bañ sant yàlla julli si yéen a dem sant sama ñaari waajur waaw di sant samay coach bu baax a baax baax wooyi. tey ma ñëw fekk la ci association FILS ngeen doon fi ay mbër yoo xamante ne macha allah takku ngeen di def formation bi nga xam ne mooy garde rapprochée nan nga ko dundee. waa avant tout di remercier waa association bi. Hmm. FILS ku mel ni Bamba ay eh, Père Ibrahima Mbaye Père ak suñu coach yi nga xamante ne ñoo ne si terrain bi ku mel ni chef. Hmm. maître maître Diop maître Gueye. Hmm. di remercier gars yi bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ne ñoom lañ lëkkalool comme partenariat ko waa ONFS mooy kii de formation professionnelle quoi voilà di bëggee gars yi bu baax a baax waa lii moom wax dëgg yàlla initiative bi lu rafet la ndax un lutteur un métier la ñu wax ndax mbër mu ne war na am métier ndax làmb day jeex sa métier mooy continuer waaw moo tax gars yi bu ñu ci kii ba dugal ñu tamit instant yi gis nga ñun instant yi ñu ngi toll foo xamante ne def métier professionnel. garde corps reproché. gis nga ñu ciy daj ñu tey diñ massacré dañu wax loo xamante ne ñu musuñ koo xam. dañ doon xaabar xaabar di lëfër lëfër di def ay tuuxi duuna. mais instant bii nii ñu ngi indi beneen expérience boo xamante ne beneen comportement doomu aadama boo xamante ne. après sa vie vie professionnelle dañu ko tegal carrément ñu koy gis di ko dund. Mm-hmm. ndeke euh, garde rapproché du loo xamante da ngay dem xeex wala fëng fëng wala ndeke du formation bi jàngalaat nañ leen leneen loo xamante ni jàppoo leen ko woon ci garde rapproché. voilà surtout loolu gis nga ñun ñun mosuñu mosu mosu surtout man mosuma def formation. Mm-hmm. te dama doon ànd ak ku mel ne ay VIP yu bari di nekk ak ñoom si terrain bi dem ak sama xel rek. Mm-hmm. mais boo ñëwee ba def formation ba génn. li nga xamante ne yow souvent erreur nga doon dundee. Mhm. ndax dañ lay jàngal loo xamante ne di nga mën a aar sa bopp ar ki nga xamante ne moom ngay garder. Mhm. ndax loolu moom mooy loolu moom mooy li nga xamante ne mooy niveau professionnel koo xamante ne def na ko ak ko mhm. ndax man mi ko def tey man li may jàngal mooy dinaa mën a aar sama bopp aar ki nga xamante ne moom laay àndal. léegi nag bu njëkk nag loolu amul woon da doon ñëw di xaabar xaabar rek indi goro bara mu munoo xam faay du jógee munoo xam ndax loolu lépp jàngoo ko woon. Hmm. mais li ñu jàngal instant yi tegal la kii professionnel li nga mën a xam fi ngay teg sa tànk bu baax a baax métier bu noble la te métier bu sensible la. Hmm. oui. Euh, Ndiaga ku xam. wala boog man xam naa la ci métier yu bëri. Hmm. kon mun naa ne beneen métier yokkuwaat na ci sa métier ñaata métier nga am. voilà yaa ma gën a xam xam nga góor la bëri métier <laughs> man maa ngi si mécanique dèjà. métier góor daal métier góor booy xalaat maa ngi ci. waaw xam nga góor moom wax dëgg yàlla moomul toog. waaw xam nga tamit instant yi ñëwaat na leneen beneen expérience ñëwaat na sama bopp mu nekk garde corps rapproché mu nekk loo xamante ne tamit yàgg naa ko bëgg quoi mais mosuma am chance tamit def formation professionnelle comme nii voilà mais sama métier mécanicien yàgg naa si trop trop waaw sama garage mi ngi ancien piste ba métier góor daal ay maçon yooyu yu ko xamante ne góor yàlla dañ ciy yëngu lépp dama si yëngu mais am naa beneen expérience daal tey daal ak beneen comportement boo xamante ne su ma génnee sax mën naa éduquer waat sama bopp si leneen facette. voilà. jaajëf na. waa doom yaa rafet na.